Cheikh waaw combat bi ni ko gisee mooy Mbour moo xewle Serigne xewle nekk koo xamante ni mënuñ xamuñ ñu koy nuñ koy def ndax ni muy def mu nekk loo xamante ni lu amoon njëriñ la lu ñu amoon importance te loolu loo xamante ni dañ koo bëggal suñu bopp la muy combat boo xamante dañ koo war a jël koj ko gañe ko ci kàttanu suñu borom ndax boo xoolee ale ba Dakar yëpp dañ ñoo sàcc ba ñëpp xam dañ ñoo sàcc. bii nag amul lu ñuy indi amul lu ñuy ragal Tapha na taxaw Tapha na taxaw ñi ma boobam rek bu daanu mu def daanu combat bi daan rek la combat bi dem rek si tey xel mu seel dem non violence yàlla may ñu dem ñu ngi ci waat mbuur waaw bu digg du mbuur lay xewee rek. non ñu mun liggéey dafa at mën nañoo téye père waaw waaw loolu moo am sax waaw tey ba moo jëyee man tey ji fekkoon tey ji man man maa demoon tey di ka di ka di ka kooñe ndaxte mënuma ko sax di ka dolli xel di waxtaan ndax lépp loolu dañ koy dañ koy laajte biir quoi tey ba moo jëyee tey combat bi tey li ma gis mooy tey bala moo xeex Tapha Tine jàpp daan lekk waaw da koy téye ba pare buy xeex di am day téye Tapha ba pare day door a xeex boo seetloo tey bu ma jël li ko daanal yëpp tey tey mooy day day xeex te du téye te loolu la nga naxe ba ma jëlee ku ko naxul mën na koo daan mais bu téye ba pare am li mu bëgg doo a xeex moo mooy yoonu ko ñëpp xam nañ ne Bombardier làmb ji nii ku ko naxul doo ko daan benn Bombardier na tey dëkk dëkk mbuur nag daa xaw a métti duñ la jàppale benn amul jàppale autorités yi nañ jàppale Bombardier jàppale jeunes yi nguur yi ñëpp di leen jàppale si combat yi combat yi daa métti Bombardier la mu bëgg kaa defal boppam loolu tamit naay sul waaw nañ ko jàpp si combat bi euh, Tapha moom ah na téye jàpp ba mu dëgër daan Tapha Tine mënta bëri waaw bu sooba yàlla kay waaw guddi guddi mbuur la waaw bon d'abord euh, di jër jëfal bu baax a baax euh, di jërëjëfal waa Dakar Actu vraiment yow moom dañoo yàgg ah, tey nag bis la boo xam ne nii bis bu rëy la ci li nga xam ne mooy làmb donte nag bis boo xamante ni moo Bombardier man a tudd am bis bu rëy ci lamb bu ko dépassé parce que damay wax ne ku dajeeg mu amee ndaw Tyson dajeeg Moustapha Gueye dajeeg Zallo dajeeg Balla Gaye dajeeg Yaxya Diop Yékini dajeeg Modou Lo dajeeg dajeeg dajeeg dajeeg tey champion yi nga xam ne ñoom man ci àdduna nga dajeeg ñoom damay wax ne ñi nga xam ne ñoo fi gënoon a jafee daan ci làmb ji moom daan bi muy dan Mohamed Ndao Tyson le 25 décembre 2002 di jël roi des arènes booba ce n'est pas donné à n'importe qui un little de sa génération nga ñemee affronter ki nga xamante ni mooy Mohamed Ndao Tyson bi muy dan ballagay le 8 juin 2014 di jël nek deux fois roi des arènes booba damay wax né ballagay Gaye moom mu ci Sénégal booba mbeur yu bari ñi muñ ko ñi muñ ko jël bi muy même bi muy dajé ak modlo ñi ngi wax ne bobo mo Lo mo waroon a jël roi des arènes bobo parce que mo Lo bobo Dakar gunge nañ ko Sénégal gunge nañ ko bama ag ci lamb fo xamanteni fu doy war c'est pour vous dire que combat bu gëna reuy combat day top ci yenen combat rek mais bis bu nek bombardier gita ngass na ko bombardier nak tay ci génération ñi nga xamné ñoo ñom la dess ci lamb dafa daan ay ñi nga xamanteni ay magam lañ daan ay moromam dan ay li nga xamné moy rakam trois générations le bombardier daan ci lamb tay buñ doon xol fa nga xamanteni fa la règlement lamb yemoon Bombardier bëreetul parce que mu ci 46 ans 47 ans te l'âge de la retraite des lutteurs euh, était fixé à 45 euh, ans mais bu gissé état de forme bi nga xamné mom la yor hygiène de vie bi nga xamante mom la yor tay moo tax ba tay Bombardier mën daan ñi nga xamante ay rakam lañ mu wara dajé nak ki nga xamante mom moy tafatine ñi am fuñu jaaroon métti woon ci Bombardier il faut signaler aussi que tafatine limu def Bombardier kenn mosu ko def ci lamb bëreeg moom giita ngaas ak moom xeex moom ba arbitre nangu ko ci say loxo nag mënatoo bëri sa la première fois dans l'histoire de la lutte Bombardier nekk roi des arènes kon Tapha Tine moom it dafa am mérite waaye damay wax ne Bombardier bukki boo xamante ni saa yoo ko dàqee ci sa gétt bàyyil xel ne dina ñëwaat moo tax ma wax ne wolof mooy wax nag ne jeexaat foo fare doom delloo fa sa loxo Tapha Tine fa ko jàppoon ci Bombardier ba am li mu amoon ci Bombardier du ko bàyyi waaye Bombardier it la nga xamante ni moo ko ñàkkaloon ca digganteem ak Tapha Tine dina changer beneen stratégie te boo xoolee Bombardier nga xam ne état de forme bi gëj na ko am même bi muy daan Balla Gaye état de forme bi amu ko bi muy bëreeg Eumeu Sène bu mujj état de forme bi mu am amu ko te dafa mel ni itam les supporters sont plus déterminés que seen mbër tey jii lañ ko gën a gëm donte mag la moo mag Tapha bëriwul waaye moo ko mag euh, donte combat la boo xam ne bokk nañ ci ne ci combat yi war a mujj la bokk damay wax ne tey lañ ko gën a gëm parce que dañoo xam ki nga xamante ni moom la ñu yor. ñaari ndaanaan lañ ñaari ponkal lañ yoo xam ne damay wax ne kurpeñ xajul ci li nga xamante ni moom mooy kanamu nit kon nañu moytu combat bala amoon gëm naa ne combat bii dootu du am parce que xeex ba mën nañu yóbbante ardo nag mën nay commencé ci xeex man na jeexee ci li nga bëre ci bëre waaye damay wax ne itam kurpeñ xajul ci nit koo xamante ni ko lisul la buñ la ko dóoree fañ la war a dóor kaw mën na fay xaj waaye daal damay wax ne combat bii dina nekk combat boo xam ne nii Tapha amagul li nga xamante ni moom mooy combat euh, match nul Bombardier amagul carrière am match nul mu ngi ci 27 combats 19 victoires 8 défaites Tapha Tine mu ngi euh, li nga xamante ni moom itam mooy 19 combats 14 victoires 5 défaites ñoom ñëpp zéro match nul la ñu am. kon combat lay boo xam ne gëm nañ ne ndam dina am ci seen diggante ñoom ñaar waaye gars yi ak may xoromaale nag. daala boy boy xëjal booy waay ay xale rek donc ñoo ko jël ñoo ko toog ñoo ko toog Thank you. اللي كله قال ايه Wait, you magana. Boy, bu ne yapıyorsun?